asalaamaaleykum mbokk yi mbokk yi maa ngi leen di dalal fii ci seen dëkk di Dakar président Habib Sy di président de la conférence des leaders maa ngi lay jégalu wante aw ma lu may wax parce que lu ñu naroon wax ñun wax nañ ko ba pare dama ne am na fu góor di tollu gor moomatul wax lu mu moom mooy jëf est yen que xam ngeen lan mooy seen warugar yéen xam ngeen seen warugar yéen xam ngeen seen warugar ba xam ngeen lan moo doon doon seen taxawaay yàlla ne leen yàlla aar ne yàlla yokkal sutura te suñ ci yeggee incha allah yàlla ne leen yàlla may ndam dama ne coow li bi yëpp. Macky mu ngi may dégg ñaar rek mooy am on t'a tendu la main kaay ñu waxtaan soo bëggee nga jël loxo gi soo bëggulee jël loxo gi tu prendras le coup de point maa ngi lay gërëm maa ngi leen di sant.